Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un écrit par Cine TV. stade seen Sène di def campagne boo xam ne bii ay activité ay jongante yoo xam ne yi euh, waa nawetaan dañ koy def ci euh, euh, tout tànk yi nag li ñuy wax ay cadet mooy ñi nga xam ne dañoo am fukki at ñett fukki at ñeent jëm ba fukki at ak juróom benn wala juróom ndax ñooñu buñ gisee tey ci ñoom ñooy def école suba ba tax na tey sax daanaka lañuy ñoom la ñuy arrêté li nga xam ne seen i jongante moo tax sax tey ñu jël stade bi ñu ne nañ ko def ndax bu suba xale bu ne mën a dellu école ci loolu nag waa COSYDEP partenariat bi nga xam ne dako am ak ministère de l' éducation nationale bu yàgg nag naam mais bi ministère daf ci gën a jàpp gën ñu dooleel ba euh, li nga xam ne moom lañ mëbët ne dañu koy def ñu def ko mais bu ñu koy def dañu fekk xale yi fi ñu nekk muy ci plage yi fekk leen ci euh, euh, bërëb yi nga xam ne ñoom fa la ñuy nekk ba tey jii ñu ñëw ci stade Massène Sène pour dimbale ñi nga xam ne ay supporters lañ bi ñu jógee seen kër yaakaaruñu woon ne fii bu ñu fi ñëwee nañ fi am fourniture ñu ne nañ leen fekk fañ nekk ñu jàppale leen ci ay fournitures scolaires moo tax tey jii xale yi fi ne ñu ci bëree bëri ab lim bu takku ku ci ne jox nañ la ay kaye ak i bic pour que bu subaa incha allahu rabi nga mën a dem booy dem école nga mën a am kaye boo tàmbalee ba dax loolu mooy tax que ubbi tey bi ñuy wax loolu mën a taxaw beneen bi ci tegu mooy que ci partenariat boobu ubbi tey benn pàcc la ci wante dañ ne sama école sama yitte sama école sama yitte sama école mën naa delloo njukkal sama école euh, beneen bi ci tegu tamit mooy Euh, suqali sama école kon loolu bu ñu ko déggee mooy que nañ ñëpp delluwaat école ñun nag ko si def yàgg nañ si kon tey ji bu ministère ñëwee gën ñu dooleel dañu si dañ koy rafetlu rek naam nag am na ay jafe-jafe yoo xam ne xëy na mën na ci am ci mbalu bi tey jàng ci yenn bërëbu jàngukaay yi ndax am na ci école yoo xam ne naam mën nañ ko def mais dañ ne école boo xam ne bi mënoo ko def tamit la nga mën a def nga tàmbali ko rek ba euh, loola mën a mate ndax am na ay inondation yu am ndax taw yii mujj am na ay écoles yoo xam ne yi fañ fañ nekkee nag fañ leen fañ leen samp moo waral ñu am jafe-jafe ndax ci Fatick bu ñu jëlee xaaliñaa fa gox bañ fañ ko samp looloo ko waral bu ñu jëlee croisement TP loolu la bu ñu jëlee Darel 2 tamit loolu la naam liñ naan benn ASC benn école day loolu mëbët boobu euh, euh, am nañ loo xam ne jëfe nañ ko ci wàllu euh, région bi ba ñëw ci ODCAV bu Fatick ndax tey jii xëy na am na école yu bari yoo xam ne ASC yi dem nañ fa béy nañ ko rato nañ ko samp nañ fa ay garab te loolu lañ doon doree ASC dañ na sax war nañ sax bu ASC bi wéyee ñu ne daayira bi nekk ci koñ bi wala groupement féminin bi nekk ci koñ bi ku ci ne nga ñëw nga xam ne école sama école sama yitte loolu ñun ñëpp ñun ñoo ko war a def loo xam ne lii sun suñ yëfu bopp la ndax euh, daara yooyu kat suñuy doom suñuy sët ak suñuy suñuy njaboot ñoo fay jànge te ku ci ne sañ sañ nga tey gii daara booba sañ sa njaboot di jàngeekat bu fay génn mu génn fa xam-xam boo xam ne bii bu ëllëgee na ko jëriñ jëriñ askanam jëriñ réewam. xel man na dal na man na dal dal dale di ndax eh, njiitu réew yi nga xam ne tey jii ñoom ñoom na yàlla dénk réew mi am na mëbét bu ñu def ñoom sax dañoo tuddee nité ñu ne nité muy loo xam ne li eh, nouvelle initiative n'est-ce pas humaniste pour l'éducation la ba nga xam ne loolu mooy que nan nañu tëggaate suñu école. nan la ñu tëddaa rek tëggaate suñu njàng ak njàngale te foog naa loolu ñun ñëpp Sénégal d'accord woon ne école bi day méngoowut ak suñuy aada ak suñuy cosaan ak suñuy mëbët kon tey jii bu fekkee ne ñi yor réew mi ñoom xalaat nañ xalaat boo xam ne méngoo na ak li askan wi xalaate école am kon loolu ñu dañ koy rafetlu naam nag du ñaak ay jafe-jafe ndax njàngale kat doyul ndax buñ jàppee ci Fatick fii daanaka mën nañ ne ñi nga xam ne dañ leen affecté wala ñu déplacé li ñu wax mouvement national ak mouvement yi nga xam ne moom la euh, jàngalkat yi def ñoo ñu remplacé nañ leen wante nag yeneen jàngalkat yu ciy dolleeku loolu foofu moom am na jafe-jafe abri provisoire nag moom réalité la te man li may wax man abri provisoire moom ma gënal école bu ñu tëj wala ñu ne xale bi mën a jàngi école xale bu toog ci suufu garab am tableau ñu koy jàngal wala mu dugg ci abri provisoire foog naa moo gën xale bu nekk ci mbedd mi di di yelwaan wala muy xale boo xam ne bi ah, jàngul kon nag abri provisoire naam mu ngi fi mais foog naa ne ñiitu réew mi liñ wax nguur gu bees gi liñ wax ne moom lañ mëbët pour que abri jóge fi nañ ñaan yàlla loolu mëbët boobu yegg te foog naa bu yeggee ñun ñëpp tamit dinañ ko gis. damay jaajëfal d'abord président zone bi muy aadama Seck ki nga xamante ne aussi yàlla def mu nekk le responsable local de la COSYDEP ci initiative bi mu jël tey jël ay cahier ay bic ay jumtukaayu njànge ñu jogleel ko xale yi. ay tout tànk yoo xamante ne vraiment soxla nañ ko jóge stade baale benn lot de cahier ay lu mat fukki cahier ak juróom nga yóbbu ko sa kër di nga ci mun a jàng sa rakk jàng si keneen jàng si ci kër ga du pense que initiative boobu moom dañ ko war a siiwal dañ ko war a lawal ci biir Sénégal ba nga xamante ne à chaque fois suñu match yi du nekk rek football dem ñibbi mais du nekk supporter dem ñibbi mais mun nga di ñibbi yàlla wërsëgal la nga am loo yóbbaale sa kër donc loolu moom vraiment ñoo ngi ko rafetlu bu baax a baax

Santé sur TV L'actualité sur TV Politique sur TV Sport sur TV Religion sur TV Culture sur CineTV. TV C'est xibaar ci Cine TV